noonu pilaat joxe ndigal ñu dóor yéesu ay yar xarekat ya ràbb kaalaak dég teg ko ci boppu yeesu solal ko mbubbam xarekat mu xonq cur ñu di ko jegeñ si di ko pes naan ko nuyu nañu la yow buuru yawut yi pilaat génnaat ne leen gis ngeen maa ngi leen koy indil ci biti ngir ngeen xam ni waa ji gisuma ci moom genn tooñ yéesu nag génn tegoo mbubam xarekat mu xonq mi ak kaalak dégg gi pilaat it ne leen waa jaa ngi waaye bi ñu ko gisee su mag ak alkaati yi di yuuxu naan daaj ko ci bant daaj ko ci bant ba mu dee pilaat ne leen jël leen ko yéen daaj ko ci bant ndaxte gisuma ci moom genn tooñ yawut ya tontu ko ne am na nu aw yoon te ci yoon woowu war naa dee ndaxte teg na boppam doomu yàlla bi pilaat déggee wax jooju dafa gën a tiit dugg ca taax ma daldi ne yéesu foo jóge waaye yeesu tontuwu ko pilaat ne ko man ngay bañ a waxal xanaa xamuloo ni am naa sañsañ yu bàyyi la te am naa itam sañ-sañu daaj la ci bant yeesu tontu ko ne amuloo benn sañ-sañ ci man su dul bi la yàlla jox looloo tax ba ki ma jébbal ci say loxo am na bàkkaar bi gën a rëy booba nag la pilaat doon fexe bàyyi yeesu waaye yawut yi di yuuxoo naan boo bàyyee kii doo xaritu buur bi sesaar nit ku teg boppam buur noonu sesaar la bi pilaat déggee loolu mu daldi génne yéesu ca biti dem toog ci jalub attekaay ba ca fa ñuy wax berabu doj ya ci làkku yawut ñu naan ko gabata ca bés ba ñuy waajal màggalu jéggi ba ba la woon ca wetu digg bëccëg pilaat ne yawut ya seen buur a ngi waaye ñu yuuxoo naan na dee na dee daaj ko ci bant pilaat ne leen ndax seen buur bi dama ko war a daaj ci bant sëriñ su mag sa ne ko amunu benn buur bu dul sesaar noonu pilaat jébbal leen yéesu ngir ñu daaj ko ci bant bi leen ko pilaat jébalee ñu jël ko yóbbu yéesu ci boppam gàddu bant ba génn ngir dem ca fa ñuy wax bu kàngu bopp ñu koy wooye golgota ci làkku yawut foofa la xarekat ya daaje yéesu ca bant ba ci noonu it ñu daajaale ñaari nit ci wetam mu nekk ci digg ba pilaat santaane itam ñu bind teg ko ca kaw bant ba ñu ko daajoon mbind ma lii la wax kii mooy yeesum nasaret buuru yawut yi mbind mooma yawut yu bari jàng nañu ko ndaxte fa ñu daajoon yeesu ca bant ba jege woon na dëkk ba te mbind ma ci làkku yawut la woon ci làkku waa ak ci grek noonu sëriñ su mag su yawut ya pilaat bul bind buuru yawut bindal rekk kii moo ni mooy buur yawut yi pilaat tontu leen ne xas naa ko bind du deñ xarekat ya bi ñu daajee yeesu ca bant ba ba noppi dañoo jël ay yéreem séddale ko ñeenti cër ku nekk benn jël nañu it mbubbam bi ñu ràbbi ca kaw ba ca suuf te amul benn ñaw xarekat yi di waxante naan mbubb mi bu nu ko xotti waaye nanu ko tegoo ay bant ngir xam ku koy moom noonu la mbind mi waroon a amee bi mu naan seddoo nañu sama yére tegoo ay bant sama mbubb loolu nag la xarekat ya def ca wetu bant ba ñu daajoon yeesu yaayam a nga fa taxawoon moom ak doomi ndeyam ju jigéen maryaama jabari kolopaas ak maryaama mi dëkk magdala bi yeesu gisee yaayam taxaw ci wetu taalibe bi mu bëggoon mu ne ko soxna si sa doom a ngi neeti taalibe ba sa yaay a ngi nii booba la ko taalibe ba yóbbu këram yor ko bi loolu wéyee ginnaaw yéesu xam na ni lépp mat na léegi mu ne nag ngir amal mbind mi dama mar amoon na foofa gudd bu fees ak bineegar noonu ñu jël sagar tooyal ko ca takk ko ci bantu garab ju ñuy wax isop teg ko ci gémmiñu yéesu bi Yeesu muucoo binegar bi mu ne lépp mat na noonu mu sëgg delloo ruwaam yàlla keroog ba ñu dee waajal bisu noflaay ba la woon te yawut yi bëgguñu néew ya des ca bant ya ndaxte bisu noflaay boobu fonkoon nañu ko lool ñu ñaan pilaat mu damm lu tànk yi ña ñu daajoon te jële leen fa noonu xarekat ya dem dammi tànk ku jëkk ka teg ca ka ca des ca ñañu dajale woon ak yéesu bi ñu egsee ci yeesu damuñu ay tànkam ndaxte gis nañu ne booba faatu na waaye kenn ca xarekat ya daldi jël xeej jam ko ko ci wet ca saasa deret ak ndox di tuuru kiy nettali mbir yooyu da cee teg bëtam te li muy wax dëgg la moom ci boppam xam na ni li muy wax dëgg la ngir yéen itam ngeen gëm ndaxte loolu dafa xew ngir mbind mi am benn yaxam du damm lenn it mbind mi wax na ko dinañu gis ki ñu jamoon ginnaaw loolu yuusufa mi dëkk arimate ñaan pilaat ngir yóbbu neewu yéesu yuusufa taalibe yeesu la woon ci lu kenn yëgul ndaxte dafa ragaloon yawut ya pilaat may ko ko yuusufa daldi dem yóbbu ni ko dem itam ñëw moom mi mosoon a seeti yéesu guddi mu indaale lu war a tolloog fanweeri kilooy cuuraay lu ñu defare ndabi miir ak banti aloos ñu jël néewu yéesu laxas ko ci càngaay boole ko ak cuuraay li ni ko yawut yi taamoo def bu ñuy waajal néew toola nga woon ca wetu barab ba ñu daajoon yéesu te ca tool booba amoon na fa bàmmeel bu ñu musula suul kenn ca bisu waajal la woon ba yawut ya doon waajal bisu noflaay ba te bàmmeel ba jege woon na foofa lañu denc yéesu